merci monsieur le président félicitations monsieur le président mën nga présider tey vous êtes un grand environnementaliste notre président du REPES ñoo ngi lay féliciter si sa présidence di ñaan yàlla yàlla yàggal la an ka moƴƴo mboɗo salminima mboɗo juurinima mo ñaganima allah yo allah suur sama xarita nag te yàlla dafa wax sax dara ci xarit ndax nit ku yiw la nit ku baax la waaw nit ku am njariñ la te loolu yàlla moo ko bëgg donc yow wàlla wadan ma barke salaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le ministre des finances et du budget monsieur le ministre du travail monsieur ministre ñoo ngi lay ziar di ziar seen délégation yi ngeen àndal yépp di wax ne ñu ngi féliciter aussi la présidente honorable Daba Diouf qui la présidente de la commission ki prépare un grand voyage comme niñ ko doon waxee ca COP 28 ba ndax moom it fexe na ba def boppam environnementaliste waaye nag magum lëndëm la soo ko dajee mu daj boppam soo ko dajul mu daj boppam maire trois fois maire trois fois kenn du ko def ba pare kenn di la wegati ku am respect nga te ku respecté nit nga ku la respecté nga respecté sa bopp ku la respecté wul nga respecté sa bopp ndax jàpp naa ni bu dul woon nii rek kenn du bind kenn message kenn du la tala sax xool parce que nit ñi am nañ fu ñu rawantee nag ci xel yi lañ koy rawan la ñuy rawantee kon madame le ministre madame la présidente voyage bi dinañ ko préparer incha allah te dinañ ca dem nag bu neexee yàlla ak yonent bi te dara duñu téye ñu ngi nuyu bu baax seen délégation yi di wax ne euh, damay ñëw rek toujours ci la grande muraille verte que l'ingénieur le président Abdoulaye Wade avait mis sur place nga xamante ne lu mu xalaat dëgg la defe naa ni su fekkente ne déposé wuñ ko de tout son contenu c'était pour lutter pour euh, les changement climatique la désertification, lutter contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté. De Dakar à Djibouti, gis naa ni benn partie bi tey euh, yéen a ngi koy jël en considération mooy le reboisement mais man j'aurais suggéré par exemple euh, la façon de reboiser ay ay ay garab yoo xamante ne dañuy nekk ay garab yuy jur meññeef pour combattre li nga xamante ne mooy l'insécurité alimentaire parce que loolu moo doon eggale bi projet boo ko jëlee moomal ko sa bopp di ko liggéey da ngay jël la ca borom def yëpp ca contenu ba même boo changé forme ba nga jël fond ba mu amal la njariñ loolu la président Ablaye Wade doon xalaat ba tax mu teg li nga xamante ne mooy la grande muraille verte donc ñeen a ngi ciy liggéey bu am solo di féliciter aussi ñi nga xamante ne ñoo yore reboisement bi euh, docteur Oba nga xamante ne tey Euh, xëy na nekku fi mais dama ko fekk ci yoonu tubaab bi muy liggéey liggéey bu am solo di wax ne euh, ci nga xamante ne moom mooy bloc man dama si am xam-xam donc ñu ngi wax ci vignette verte bi parce que bàyyi oto yi ñuy daw dimanche pollution bi nekk Dakar war nañu xalaat benn jour lañu war a mën a def bloc comme ni ñuy defee en Europe benn oto du daw wala gros porteur du daw boo xamante ne amul moteur wala kuy daw nga fay loo xamante ne soo ko fayee su ëllëgee dina am lu mu njëriñal réew mi loolu mooy wàññi li nga xamante ni mooy polition bi nga xamante ni moo am ci dëkk bi loolu nag je vois que ni bëriwu xalaat mais espérons que Karim Wade bu ñëwee dina eggale projet yooyu yëpp parce que quatre mois leen fi desee ce petit ministre nag qui a osé ici ce petit ministre de Mame Mbaye Niang qui a osé menacer Karim fii fekkuñu fi suñu fi fekkoon ñu faj ko ba mu wér ndax moom du dara merci bien cher collègue Mame Diarra honorable, honorable Babacar Mbeng